ndaje bi ñu am tey lu ko waral mooy dafa am benn euh, waay bu tudd Ousmane Sonko ak ay saaga yara di ko ñàkk tegin ñàkkin tegin boo xam ni mënu ma ko wax mënu ko fenn génn ah loo xam ni lu metti waaye ba la ma ciy dellu soit na bëgg tout simplement wax ni man mii maanaam agent de l'état la état bi moom lay liggéeyal ma nekk ci service am et boo nekkee maanaam un agent de l'État nekk ministre dafa am loo xam ni daf la war ci état mooy kuréel état bépp kuréel état bu am te ji saytu liggéey bu nga xam ni moom nga koy defal yow danga am obligation fépp fu la fu mu la wooyee te yoon may ko ko te yoon tëral ko da nga am obligation déglu ko wala nga seeti ko ci liggéey bu nga xam ni état moo la ko sant loolu nag dama ciy xaw a xuus tuuti état bi dafa bëri ay kuréel yoo xam ni maanaam day saytu sa liggéey bu ma ciy jëkki lim mooy euh, IGE mooy inspection générale de l'État nekk présidence de la République kooku bu ko président bind lettre ni ko demal nga saytu liggéey yi ministre liggéey wala les organes de l'État wala maa xam moo xam ni maanaam ay société wala agence day dem fekki leen saytu leen beneen bi cour des comptes cour des comptes ay magistrats ñoo fa nekk mën nañoo toog xool ay agence wala xool ay structure de l'État décider dem ni dañuy saytu seen liggéey dañuy dem aussi fekk leen benn rek nga ci am droit jóg ñu convoqué la nga dem fa mooy bu amee commission parlementaire comme nag foofu c'est le pouvoir maanaam parlementaire ñoom am nañu sañ-sañ convoqué la nga ñëw am na yeneen am na ay IGF nga xam ni mooy inspection générale des finances kooku ministère de finance moom nga mën a bind lettre mu déclenché ko ñëw seet say projet wala say programme am na yeneen aussi am na ay contrôle financier am voilà voilà même le am na sax contrôle interne yi nga xam ni ñoo nekk sa ministère mais am na beneen boo xam ne ngi tudd nag président de la république moo ko créé pour maanaam bon gouvernance mu gën nekk réalité damay wax tey nii OFNAC boobu leen bu fekkee yoon may na ko bu ko fekkee yoon may na ko maanaam mu convoqué ministre man de bu fekkee yoon may na ko mu convaincu ministre sax maanaam soldat la damay xel dem fekk leen waaye ci lu ma xam ak lu ma gëm yoon mooy of nag loolu la léegi pour ma dellu si ci lu Sonko doon wax maanaam alarba euh, bi bi passé te mu doon wax ni audience boobule nga xam ni man maa ko accordé woon man maa ko ko mayoon mu ñaan ma ko ma may ko ko audience boobule am na moom ci ay génnam nee na naa wax kañ la naa wax fan la naa wax ban la ba ma ko koy may booba man maa ngi nekk délégation général à la protection sociale et à la solidarité nationale ri par chap délégation boobule man maa ngi fa jóge en juillet 2014 te audience boobule ba muy am moom moo ko laajoon je répète moom moo ko laajoon ba muy am benn fonctionnaire bu mag moo foon te fonctionnaire boobu magistrat loon moom moo teewee audience boobule. waaye nag man du ma wax waxtaan bi nga xam ni waxtaan nañ ko tout simplement dama mënul comprendre xam nga seen normal qu'un Sénégalais soxla gis président mu fu mu jaar ku ko yombalal loolu normal la. lu normal lu koy mooy nit def ko ba pare di ko weddi loolu moom ma jaaxal waaye bu xam nga dañuy wax nii bu fekkee danga nga damay xeex système waaye bëccëg bi nga ni ndar kàmm li nga maa ngi koy xeex waaye bu guddee nga jaar ci diggante bunt yi di ko seeti boo ci amee problème kooku du ci man ci yow la waaye damay wax leneen pour jeexal waxtaan boobu boobule moom ci boppam am na benn élément sonor moom moo ko def am na te fan yii passé loo ko def te ci biir élément sonore boobule moom ci boppam nangu na ni audience bi am na wax na kañ la ak wax na ku ko fekkee loolu nag comme yoon may ma man ma génne ko dama koy ñaan moom ci boppam bu mu autorisé ma bu ko bu fekkee bëgg na ko mën ma génne ko bu nee prip mën ma génne ko bu neexee yàlla donc loolu lay xaar. mu def ko donc jox ko presse bi jox ko sénégal yi